monsieur euh, sama question bi ma koy doolee rek moo di euh, da nga da nga sukk jébbalu da nga jébbalu jéggalu ci ivoirien yi defoo ko ci ñi nga xam ñoom ñoo di waa CAF defoo ko ci ñi nga xam ñoom ñooy waa FIFA pourquoi loolu. lu si mun a am si lu nga xam ni def naa ko dama ko def c'est parce que sénégalais la am na yu nga xam ni am na lu xew. loo xamante ni nit yi gisal nañ ko seen bopp sénégalais yi def ko jëmale ko si ivoirien yi toj bopp ivoirien cuugal ivoirien ak cuugal ivoirien nu mu toll ñu door si xeer kon xeer bu toj nga gis ni loolu dafa nekk lu nga xam ni lu doy waar la te ñu nekk suñu ay confrère ñu nekk ñoo xam ni suñu ay dëkkandoo lañ yoo xam ni dëkkandoo yu am solo lañ si dëkk loolu nag bokk si lu tax Alassane Ouattara nekk suma mag nekk ko xamni moma jitu su nguur mu buguma ma bugu ko mo dal ko wo telephone nako mangi maa lu nga xam tan bi sunu wa dekk def nan ko muy jëf bu ñaaw muy dal ci kaw ivarien parce que lolu mm-hmm. mm-hmm. nekk lu nga xamni lu ma lu la rafet lu mako donc ma dal di len di wax ni balenu ci suba kaddu parce que lolu day nek lu nga xam fay am solo day nek porte bo xamni da fay am doole man bu doon seetaanee si télé bi gis ay Ivoiriens yu nga xam ne seen cuukal dafa toj sama yaram dafa daw dama jaaxle si lu nga xamante ni mooy mbir boobu ñaawlu naa lu ni mel donc loolu mënuma def lu dul ma daal di jégalu si kanamu àdduna ñu xam ni. monsieur le président Macky na Ivoiriens yi nekk ñoom gisal seen cuukal toj parce que sa benn ministre sax cuukalam toj na. waaw cuukalu Malick Gakou du cuukal bi moo toj mais si jëbi la ñu ko dóor xeer maa ngi koy gërëm si lu nga xam ne encaissé na ko xeer boobu. parce que lu si ëpp solo nga xamante ni bi dal na ko mooy deretam bu tuuru noonu wane na ni deretu ivoirien donc tuuruñ mais aussi deretu sénégalais yi tuuru nañ deretu il a sauvé l'honneur Malick Gakou donc lu mu def lu am solo la maa ko wax bu beneen yoon la joxewaat cugalam parce ah. que c'est très important. loolu dinaa ci ñëw moom maa ngi jot am solo la. merci beaucoup ci li nga wax parce que lii mooy waral ni ministre Sénégal ministre Macky Sall yi du ñu tëdd di nelaw. Mhm. ministre la ñu nga xam ni. bu xeer ñëwee du ñu daw. parce que ministre ba daw na ministre ba cugal ba toj na moo gën ministre bi daw na lu si ëpp solo mooy Malick Gakou lu mu def loolu rafet na ko. Mhm. Mhm. parce que benn Ivoirien la ñu bëggoon a xaaj muy ministre Ivoirien bi. mu góolu ko Malick Gakou jël boppam. Oh. protéger bopp Ivoirien. Oh. Ah. il a donné son tchoukal pour protéger d'autres tchoukal. c'est très important donc nous féliciter conseil des ministres l'ordre national chevalier du mérite parce qu'il a osé je suis prêt pour donner mon tchoukal. Ah. pour remplacer ce loolu du du Macky lu si ëpp solo man dama la bëgg a xam ne yow yow yaay yow da nga coofe macha allah. ma ne coofe da coofe. roofe doore ay coofe ay roofe ay boore. da doore su dee jotee da nga war a dee. da nga war a joxe sa bopp si lu nga xam ne mooy mbir boobu. boo amee donc ñu ngi remercier. non defal loolu di wax ne ministre yu si des. ku ci sa naataango joowu seet si la bu ñuy sànni xeer protéger sa naataango. d'accord dernière question bi may posé moo di comme que jébbalu nga ci Ivoirien yi fi mu nekk lan nga fas yéene def pour suñu équipe nationale bi parce que wax dëgg yàlla instant yii euh, dana naan métti lool ci sunu ci sunu réew. équipe bi lu ma si fas yéene def lu si gouvernement bi def defe naa ñëpp gis nañ ko ministre des sports jóg na ànd ak ñu nga xam ne ñoom la war a àndal def si lépp lu nga xam ne bëgg nañ ko si def ndax dañu war a continuer di football wala dañu war a bàyyi football jëm si basket parce que football bi yàgg na si musuñu si am ndam basket bi am na ndam yu nga xam ni commencé nañ ko si di am donc lu si ëpp solo mooy ñu respecté suñu basket te xam ni yàlla jagle nañu football Amérique ngi nii bi mu xamee ni football doxul dafa dem si basket bi uh-huh. ki nga xam ni moom la ñu tuddee Japon mu ngi nii bi nga xamante ni bi footballam doxul dafa dem retourner sur làmb ku mhm. si ne am na lu nga xam ni moom la la yàlla jagleel mhm. ñun yàlla basket la ñu may mhm. yàlla nag bu la mayee basket ngay jéem a wéq bal du dem donc loolu mooy lu si ëpp solo basket ak làmb oui <clears throat> d'accord merci beaucoup monsieur maa ngi lay gërëm jaajëfal la kon Mariam di wax ni maa ngi nuyuwaat encore une fois suma jabar suma sœur Kogo di ko wax ne ko maa ngi koy liital fii si Walfadjri di ko wax ne ko mooma tere nelaw chéri boy Macky Endo. barke Rasoulaay ay ñun président Endo la ñor mënta dem sàggu Mawla may ñu clip fii lañ ñuy fekk jàpp ñu. <laughs> yow kay ñun ñu jàpp yow. may leen ñu ba ñu tabaski ba ñëw rek. e xoolal eh mais waa ji moom xanaa dafa takk téere Tamsir Jupiter Njaay. Tamsir Jupiter Njaay ak. na jàngat dëgg te yoo. ay Tamsir Jupiter ah mi ngi jàngat. mu ngi jàng. tam si Jupiter kii moo yàqu may ñu clip yow. pour